tey tey la ñu ubbi kon ñaareelu session bu rek cour d'assises bu Ndakaaru nag fukki affaire ak juróom la ñu nag war daal di àtte ci wàllu faat bakkan Samba Boy kon toll nag ci ñaar fukk ak juróom soxna Aïssatou Anca Touré Abdoulaye Ndiaye. ñaareelu session cour d'assises bi lu toll ñaar fukki ak juróom accusé ñoo war a wuyu ci délit yu mel ni faat bakkan doomu aadama association de malfaiteurs ak infanticide. crime yi ñu ngi dem ci meurtre maanaam nga rey nit te ko. wala aussi infanticide mooy li nga xam ne da ngay da ngay jur doom après nga rey ko ak aussi sàcc yoo xam ne da nga yore jaas yi wa ngeen nekk mbooloo hmm, ngeen def ko guddi maanaam li ñuy wax vol aggravé parce que day am ay circonstances yu bëri. ci bés bu njëkk bi Yankoba Sima ak Mbalou Dia ñu janook ëttu àttekaay bi. si fàttali si atum 2007 la ñu agressé woon étudiant bi ñuy woowee Aurélien Savi de Tové ba mujj ko faat. assise bi doon na occasion ngir ñu waxtaanee mbirum jënc yu yàgg yu ñuy amal laata ñu lay jugé tey jii lu toll ñaar téeméer affaire ak juróom-ñeent ñuy xaar ñu àtte leen. jugement yi kooku li ko waral mooy xam nga xam nga cour d'assises dafay jugé li nga xam ne mooy crime. crime nag bokkut ak euh, di ñuy wax délit ordinaire délit crime mooy affaire bi nga xam ne moo gën a garaaw kooku il faut nga yóbbu ko ci juge d'instruction nécessairement c'est obligatoire que juge d'instruction instruire crime bi ce qui fait su koy instruire dossier bi day jël temps pendant que mu ngi koy instruire ki ñu accusé ki inculpé bi mu ci prison bi di xaar su juge bi defaree dossier am ba pare nag ci lay doog a clôturer dossier bi jël ordonnance de renvoi devant la cour d'assises su boobaa nag ci la ñu enrôle bi mu ñëw ci cour d'assises ñu doog ko àtte loolu moo tax mu jël tam mu ibbi lundi bi euh, cour d'assises bi dina àtte si diiru fukki fan ak juróom lu toll ñaar fukk ak juróom doomu aadama yu ñu tuumal la président cour d'assises bi di wax ni ñoom dinañ def seen liggéey nu mu waree comme ñu ko tàmm defee.